وإنا إليه راجعون يتدلونك إنال المريم yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko te di ko ñaanal kër fa yàlla ca aljana di ko ñaanal itam mu dëkkaale yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak wàllu yu yeeg saxaaba yi ak aarifuuna yi ak saalixiina yi te jàpp nan ne loolu la yàllay def mu ne ndax Baay Ñas radiyallahu anhu wax na ne kenn texewul suñu texe lu may ku bëgg ku texe mu ne ndeke Baay Ñas ba muy wax loolu mu ngi ko teg ci xadis bu wér ndeke moom waxam yëpp حديث لا القرآن لم سكو إلي ولتا يين تبي وقنا صلى الله عليه وسلم لا المرء مع من أحب ندني عندك كم صفو وانا باين نيت صفو يين يبوكو دكو ينصبهم متهالكنا بها don ta tasu kyakkyayi fili dai a gudu ta mom masta ba babu ne kuma maza so din dare da min nan yegal baki masabam dir sokku din ko sokku mu ne te mariam ku soppon yonent yalla muhammad la sallallahu alaihi wasallam وصفق مولانا شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه له مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه من يكون عارف من يكون عارف بالله من يتباين فهو رضي الله عنه وصول جميع الماسكين بحبلها تحققه من لم يكذب بربها munen mboolem ñu jàpp ci sama buum bi ak nañ ci yàlla déggal na ku dul fennoo sama borom te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne te Mariam dafa agoon ci yàlla mu ne moom mii nag yoon wasilaam mën na cee wax lu leen nañu ndax moom mii moo ko may werdu tijaan moo ko tarbiyal itam ba mu àgg ci yàlla mu ne ba dajale ñetti fatxu yëpp muy fatxul mubin ak fatxul xarib ak fatxul akbar benn bu ci nekk texeel na jaam bi mu ne ndax bi yàlla waxee inna fataxna laka fatxan mubinan daf ci teg di yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaqar mu ne daf cee teg immédiatement ne ngir ñu jégal la li jiitu ak li njëkk li mujj ci say bàkkaar mu ne Mariam tegoon na foofu tànkam mu ne teg tànkam itam ci tariqa bii ñu nekk muy tariqa bi tijaniya xam ne Cheikh Ahmad Tijani yi wax radiyallahu anhu mu ne dañoo nekk ci jamono joo xam ne bàkkaar yi day wàcc ci taw mu ne kat dafa gis ci dëkk yu mag yi mu ne ko Paris mu ne New York mboolem fi mu dem gis na ko mu ne ci dëkk yu mag yi ci pays développé yi ne su tawee ba pare lu taw bi rëy rëy buy sebeti rek mu ne mën ngaa génn doxi sa soxla mu ne du am kenn fu muy taa mu ne ndax dañu def système canalisation boo xam ne ndox bu ñëw rek dem du taxaw mu ne nit itam nag dëkk la bàyyi nee na nit mooy aalamul akbar mu ne ñax mii mu ngi ci nit mooy kawar gi mu ne géej gi mu ngi ci nit mu ne mu ngi mel ni mbàq gi ndox mi ci nekk géej la mu ne xeer yi itam mu ngi ci mu ne yoon mu ngi ci mu ne guddee pëtat mu ngi ci mu ne nit bu la wanee ginnaaw mel na ni guddi la ndax ne su walbatikoo nag xool mu ngi mel ni bëccëg. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. mu ne ndax xam nga mu ne àll mu ngi ci mu ne ku amul benn kër. ni ki ginnaaw mu ne àll mu ne dëkk mu ngi ci nit. ku yi dajaloo rek. mu ngi ci nit nawet ak noor mu ngi ci nit nit buy jooy ronga di kenn mu ne nawet la mu ne nit su réewee bu muuñee weexaayu bañi mu ne taxawaayu melax la kon nag nit yàlla daf booti yàlla yëpp ci nit la ko yàlla def mu ne système yooyu nga xam ne moom la pays développé yi def nga ne ndox bu ñëw dem Seexu Tiijaan radiyallahu anhu système boobu la def ci Tiijaan bi bi nga ne den na tariqam bakkaar lu mu wàcc wàcc du taxaw buy ñëw rek évacué wu ndax yaa ngi def téeméeri astaghfirullah suba di ko ngoon mu ne sinis nga def fanweer comme bakkaar du taxaw ci yow mu ne comme Mariane bakkaar taxawul woon ci taxawul woon ci moom kon nag xel ñun dal na ci moom. amul daara lu ñu ci ci moom mu ne wax na sank te jullee ne ne mariam dafa shahid mu ne fukk yii nag mu fas yéene leen wax nga xam ne dañoo shahid benn bi mooy ku gam yàlla gam yàlla gu mat nag te ñëw bett ko comme mariam dafa shahid mu ne akkoon nag moom ci ne ko ah anti war yaa ngoog sa borom a ngoog mu ne te sëriñ kat loolu mooy devoiram mooy jël taalibeem rek àggale ko ci yàlla su fekkee loolu amul bàyyi nee na buur a teg la loolu du sëriñ ak taalibe moom def na li ko bàyyi sant bàyyi nee na وكن مع الشيء دواما تربح mu ne nekkal ànd ak sëriñ bi mu ne soo ko defee rek dana tonawu te musul takkali moom Mariam ak Baye Cheikh Mamour mii jamono bu nekk rek daan na ci moom ne mu di ko doxal mu ne ba waxee loolu nag ba pare dafa wax wa kun muhibban waamiqan fa tuflihu mu ne na nga di ko di ne ku ko bëgg na moom sëriñ mu ne soo ko defee rek da nga am pexe wa kun muhibban waamiqan fa tuflihu mu ne moom itam moom Mariam tegoon na tànkam foofu ndax bëggoon na ko moom bii te comme pexeem amul benn werante mu ne lii nag muy wax waxu ko waaye Mawlana Cheikh Ibrahima moo ko wax baay moo dellu wax ne man lam yanal maarifata arrahmani amaaruhu baat madal azmani xalaqtu dal xalqa li yaabuduni yaani bi yaabuduni yaarifuni mu ne képp ku amul xam-xamu yàlla mu ne dundam dundam yëpp des na ci mboolem jamono lu tax mu ne mu ne yàlla dafa ne bind naa bindeef yi ngir ñu xam ma mu ne lim namm ci lim namm mu ne bind naa bindeef yi ngir ñu ma waaye lim namm moom yàlla ci ñu jaamu ko mooy mu ne ñu xam ko moom yàlla léegi nag Mariama moom dundam bettul ndax dundul sëriñ bi ne ñetti étape la am na jamonoy taflun am jamonoy shaabun am jamonoy kaxlun am jamonoy cheikhun mu ne ñetti étape yëpp encore na yàlla mu musal waaye moom ñaari tudd na ko mooy jamonoy tout tànk ak jamonoy ndaw muy jeune moom ñaaram yooyu tànk ko ku xamoon la te bàyyi na ne ku xam mu ngi aljana teewam mooy jugee aljana rek duggaat aljana mu ne foofu nag la jaar moom mu ne taalibe bi ñu génne adduna ci audiovisuel yàlla nag moom moo xam lu tax mu ne ko mu ne ndax réere wu leen ne jamono yee passé mu ne papis bu gelongal nee na moom moo ko jox askaru tarbiya mu ne te bàyyi bi ñuy firi wàlluyu dafa ne wàlluyu mooy ku xam yàlla te moom moo ko tarbiyal ba mu àgg ci yàlla mu ne bi nattu boobu passé mu ne màggat bu sëñ mu ne Maguette di génnoon addina nekkoon ci SDB mu ne moom itam mu ne natt bu yàlla wàccee la mu daal di génn adduna mu ne waaye fekkoon na mu def di war diggante ak yàlla moom itam terbiyeloon na ko ba mu ànd ci yàlla mu ne Zeynab Faal di génn adduna ci jamono yee mu ne te ñoom ñëpp ci autorité yi yëngu. mu ne moom itam ak terbiyal na ko ba mu am farxoon ak baraam ci mu ne bëcc bi mujj nii di Mariam ne li wàcc ci rek moom moo wàcc moom waaye loolu yëpp dañ ciy sant yàlla yàlla loolu la ñu sant wasta'iinu bis sabri was salaati la yàlla wax ne Ibnu Abbas da doon tukki yéeg maamam ba muy dab ko ne ko sa doom bi jigéen sa doom bi jigéen génn na àdduna mu ne ñëpp di yéegat moom la Ibn Abbas wax mu ne coono la bu ma yàlla teggil yiw bu yàlla nange la bu jëm ci man te itam mu ne coono bu ma yàlla teggil la ak yiw bu yàlla man bu ñu ci man nee na mu daal di yéegam mbaamam moom Ibnu Abbas ci dem nee na ñu ngi dégg Ibnu Abbas mu ngi naan wasta'iinu bi sabri wa salaati ba yàlla wax te di ko wax moom imam ba ba déggatuñ ko comme ñu itam loolu rek la ñuy wax di ko jëfee itam te ñu ngi nuyu bu baax président Youssou Ndour bu groupe Futurs Médias mu ne nit ku baax la ku am kóllëre la te kóllëre dafa baax ku amul kóllëre jëmut yàlla waaye Youssou Ndour am na kóllare nit ku baax la yaram kenn werante wu ko dañu koy ñaanal bu baax télévision bi jëm kanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi sallam te yàlla sàmm ko sàmm personnel am yëpp mu ne moom ak Bouba Ndour ak rakkam mu ne ak doomam ak mboolem personnel bi da dina ñaan yàlla mu sàmm leen aar leen ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ne kontaan nañ lool ci seen bu dee fii ci jullee bi la ñu nekkoon ak ñun ca almeer ya itam suñ leen di suñ koy jullee ñoom ñu ngi oo ñoom ñëpp kenn ca almeer ya kazaalika noonu bi ñu ñibbi si waatee itam ñu ngi waat ñii toog ak sëriñ bi ne lii nag mooy kóllëre yal na leen yàlla fay yiw mu ne imam Fall itam sëriñ bi mu ngi leen di seedal ne nit ku baax la muy imaamu gox bi di nit ku màndu yal na yàlla dëgëral taxawaayam mu ne yaayam di soxna Fatim bi Jóob mu ne moom itam mu ne yaayam di baax la ku am ite ku yéene jàmm ñëpp la léegi ni ñaan yal na ko yàlla defal jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàggal ko fi dëgëral taxawaayam mu ne yaay ju yaay la mu ne li war ci moom mii ñëpp nag mu ngi koy mu ne ni yaay di taxawoo doom bàyyiwu ci dara dañu koy ñaanal yàlla yàggal ko bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Hadjibou Soumaré sëriñ bi ne ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ci déplacement bii mu defoon itam ñëw teew fii mu ne oustaz yi ànd ak président Youssou Ndour yëpp ñoom oustaz Pape Anne Mohamed Seck mu ne oustaz Assane Seck ak mboolem associé yi nekk foofu sëriñ bi mu ngi seede ci ñoom lay jàmbaar la ñu seen liggéey rafet na mu ne Ismaïla Lo itam nit ku baax la ku am kóllare la mu ne moom itam gis na ko sànq ci biir ba ci Almeri ak ci kër gi fii ak ci kër gi itam mu ne Pape Cheikh Diallo mu ne moom itam ku baax la. te ñu koy gërëm itam bu baax ne mu ngi gërëm itam di nuyu sëriñ bi sëriñ Basiru Loo mu ne moom itam mu ne ñoom ñoo bokk waar wi ne ñu koy gërëm ñu koy sant ci teewaayam di ko ñaanal itam yàlla yàlla dëgëral taxawaayam mu ne gar mi lii doon wax nag waayam la dañuy wax ne ku nekk nu mel lay waxee nit ku baax la bàyyi dafa ne nit ku baax wax katu lu baax rek la mën a doon te moom nit ku baax la kon wax katu lu baax la xaritam la di wóor la leen ñu ngi leen di yëgal itam ne njabooti bàyyi ñu ngi fi ca jullee ba doomi bàyyi ci di Cheikh Abdourahim Ibrahima Niass mu ngi fa woon sëtam itam bi ne way juru Mariam nag mu ne wax na ko sànq ne ko dama jëm ci beneen géej mu ne looloo mu ne waaye Mariam mu ne jëm nañu yegg ci bët bi jëm nañu fanaan ba bañ set mbaa may na ko ko yaram may na ko ko fodde diine mi tan mayna koko waaye comme dafa am feneen fu ñu war a dem lu mel nii loolu rek a tax duñu mën a toog sëriñ bi ne mu ngi gërëm mboolem ñu dëkkee Daaru Azur macha allah di ay sottan ñu fi nekk yëpp le cher Adibou Soumaré ndi daay la ci Mariam nii moom itam ñu koy gërëm ak beneen yoon si teewaayam ñu def Faatihatul Kitaab